matt yaa ko fekki c'est-à-dire waxin la ñuy dégg olof nañ ko dégg kii euh, naka mhm. pot ma wax la benn affaire mhm. tey bu ñu xoolee léeg nga xool nit xam ni kii papaam ak yaayam sonn nañ ci moom trop mhm. léeg nga xool nit xam ni kii ku sonn ci boppam moo nekk nii mais yéen da ngeen di fekk ko xam ni sonnul ci donte papaam ak yaayam sonn nañ ci moom sonnul ci boppam parce que Adji Sarr marché Grand la daan ñëw di fa defarlu ay batterie portable yu yàqu ay écoute bu doxul ah, parce que écoute bu doxul waa xaara xaara wala écoute bu doxul écoute bu doxul waa xaara écoute bu doxul waaw ma ñëw waay ma dafay wàccee rek nga jël wala écoute bu doxul moo tax mu def portable bi main libre ba nit mën ci for dara dama lay wax problème bi fu mu dooree mhm. tey mënuñu toog suñuy doom dee ba jeex ndax aji sar, problème aji sar. ñu ne problème nañ jeex na na jeex pour dee bi arrêté nga ne bu mu jeex julit nga wala lan nga non amnistie bi la wax dafa ne d'accordul ba baale parce que déglu rek dafa wax lu leer maanaam poste yi Adji Sarr da cee def ne moom d'accordul amnistie bi maanaam ba d'accordul ñu parce que moom baalul waaw loolu la wax waaw am na ci plein am na ci plein droit maag yow bu ñu jotee woon bu ñu jotee woon ñu jékki-jékki bëgg laa baal te yow man ma war laa topp su ma neexee leen du ma la baal. problème Adji Sarr lañ tëjee Sonko. non même buñ ko tëjee wala. waaw déedéet ah. am na lu ñu koy topp. parce que moom mooy. waaw ah. Ousmane Sonko li ñu ko ah. dee moom moo leen moom moo ba ñu dee. waaw du dëgg. loolu xam nañ ko. après loolu téléphone bi nga xam ne moom la moom la jël ci. Euh, moom la jëloon ci euh, kooku ñëwoon doon ko filmé. waaw noonu gis nañ ko. waaw mais tey Adji am na droit moom mu génn wax comme. Sénégal yëpp waaw waaw dégg nga waxuma la Adji Sarr. waaw amul droit génn. Mhm. wax wax li muy wax. waaw mais xam nga Adji Sarr dafa dem ba problème am moom dong la concerné. ah mais waaw parce que. <laughs> waaw waaw xam xam nga Adji Sarr moom. ni bëgg a lëmbe dëkk bi ñooy wax waxi Adji Sarr mais Adji Sarr ay waxam du wax parce que xam nga tey ma wax la benn xaara xaara tey ji Adji saar bi mu mhm. amee problème ak Sonko Sonko day génn di doxi Adji Sarr lélu fu mu toll nii boo doon jël ku la duggal xalwa jëlal aji saar saxal woo day jàll. yaa ngi dégg ñemewul génn ci mbedd mi. dama ne xam nga xoola kii aana. du yaa may gis nii ma lay gis. xoola boo nekkoon sa xarit bu ma la defee dara dama lay ragal dootuma mu ñu gisee doo gis loolu léegi lan moo tax Adji Sarr ragal ragal sénégalais yi. non léegi loolu. na ni sénégalais euh, nañ ko. suñ ko gisee ngi en danger. waaw léegi xoola moom. moom kii baale nii kii baale. xamul ban situation la toll ba bëgg a baale kii baale baale bi moom la arrangé ni wax ko aji saar cukalam ñàkk mbalax moo tax muy xool naan kii baaluma ko kii baale nii hmm. dangaa xam ci ban situation la toll ba bëgg a baale mooy kan waaye kii baal nit ñi nii waaw kii baale moom da nga xam ban situation la toog kenn proposé wu ko baale moo xëy di baale nekkul ci benn situation loolu stable maam stable ci dëkk bi rek la bëgg waaye ma wala man waxuma ay dëkk bi dafa stable ak stablewul waaw xam nga moom boo ko musaana laaj danaan la yoon na def liggéey yoon na def liggéeyam moom mu far génn di baale moom mooy yoon léegi waaw waaye ma déglu wala sax lii nga xaaral ma wax la benn déglul fii dara xaaral ma wax la benn affaire xam nga tey euh, njiit ah xam nga nan la daan demee mm-hmm. man su dendo nak président Macky Sall la wax dé waxuma dama rëy xel mm-hmm. bu ko naré def daf may ray ba pare do ko def lu bari ñun dama japp ni xana ay conseiller amuñu fi parce que bu jaan dofee xulool mbokk ma warta dof understand kon dama japp ni tay réew mi ni mu def ni ba pataxo pataxo googu mënon nañ ci baña ag sa ba paré da ngeen am benn erreur ngand boo leen war a régler bul président bi mm. xam mooy ban xoola dafa am ñu nekk ci dëkk bi ñu rayal leen mënuñoo fexe ba xam kan moo leen rayal ngeen lijjanti ñooñu ñu xam ki leen rayal mm-hmm. de yaa ngi de mooy police ak gendarmerie ak askan bi xeenante boobu ñu régler leen bañ ba ñu dellu ci bëggante bi parce que tey police bi ngay dóor yaa koy fay mu lay dóor suñu xaalis lañ leen di ba pare soo yëkkatee birig bu ñu tay ji tak soo takk soo jëndee or jënd portable bu seer war a dox ak moom ci mbedd da ngaa yaakaar police ak gendarmerie ñoo la garanti ba tax ngay dox boo demee ba ñooñu nga yéene leen birig ci bopp lan nga lu leen boole ñan ñooñu boole xaaral may ma maa ngi ñëw ñan ñooñu boole parce que tey soo yëkkatee brique war ko dóor gendarme xaara xaara non non xaara xaara ma ñëw rek xaara ma ñëw non xama li ngay tëkkale bokkul Adji Sarr pare nañ si dossier ñu ngi li ñu jotalee li ñu jaxase dëkk bi dama si bëgg a wax quoi sa waay waaw ndànk maa la posé question question moom mi nga xam ne moom moo jotee ak jiw comme nga ne ma amul kenn ko xamne ne nako ko ñew ñëw soutenir ma la mm. projet yi nga xamne jot nañ ko ñew papam and na ci ak moom diko ko soutenir vidéo bi moom lañ la wan ni waaw ah, ki du papam de ki du papa Aïssa ki du papa Adji Sarr kii kan la ki la indi won comme di jaar papa Adji Sarr nga am Adji mun naa la wan photo won la yaay Adji ana photo yaay Adji Sarr maye ndeb bu daan way maire bi tok ci wétam waaw ñëpp xam ah, xaara xam nga man lan la man damay yor ay source ñew di wax hmm. ba pare ma wax la aji saar bala muy toll fi mu toll kep ko xamni ñewon nga ni yaay yaayam ku ñewon ni yaay yaay tàntaam hmm. ku ñewon ni yaay ndigaayam aji saar raag naag yow jote naag ñep ana ñom Gabriel kan ak ñooñu ñep dañoo dem ba ñom liñ ñu doon wax ak liñ ñu mujjé wax nekut ben dama lay wax ne la problème aji saar est-ce que ñoo non fi nga tollu ni dede xaar ma wax la fi nga tollu ni tay fi fi rew mi dugg toog di fàttali Adji Sarr ci palaato sax délit la. non du question de délit. xaaral xaaral xaaral waaw demal. citoyen la comme man damaa wax ni du citoyen bu dee citoyen nag génn dem marché. moo gën non waaw dégul ma wax la xoolal waxtaan bi dafa am fu mu demoon. après jóge fa. ñu dellu si Adji Sarr quoi. xam nga non man sama xalaat laa lay contre ma Adji Sarr Adji ko. jéemu ma ko lijjanti. yaa ngi dégg bi li ko laaj dama jox. du du boo ko laajee lim la lim ko laaj boo ko joxee da ngay wax ci loolu soog avancé. non bañu ma loolu. bañu ma loolu mais xam nga tey boo taxawee ci Adji ngay contre li may wax. dafa mel ni yow. yaa ngi dégg da nga nu Adji wala lan mooy sa Adji Sarr daa neexoon na parce que jigéen la non waaw jigéen la xam lu tax Adji ngeen xam nga lu tax Adji Sarr ngeen nopp ko nii ah. bu leen jaawal ku rafet ak ku fës wala wano no, dama xam yeen amna goor yo xam dañu bëgg jigen da ngeen bëgg jigen nak yaangi ngi wala dëgg wa wa bëgg nga lo xamni ni nit ci lay aduna am ci lay perte du aduna ah. mais ma wax la ben affaire tay ji xoola xam nga lutax ñen ñi di wax ni Adji Sarr dafa rafet dafa li jar nako ni na mm-hmm. gis nga tay jigen lu ñaaw ñaaw bu xewé buñ ko solalé genn bi mi genn nit ñi bët yi yàkkamti gis da koy mm-hmm. du deug aji mi mel lu may bañ a wax. Eh, yow waaw waaw baax léegi dama lay wax ne la xaara xaara xaara damay wax ne luy indi jàmm daal laay wax. parce que police gendarmerie boo yanoo brique di ko dóor gendarme. mais est-ce que war nañu yegg waruñu woon yegg foofu te dañ fa yegg. xam nga yéen dafa am làkk boo nee làkk ci olof te làkk bi da ngeen war a wut dictionnaire def si yéen a ngi koy làkk te bàyyiwu leen ko xel xam nga mooy ban lii di raam ca ñag ba la jom xam nga yéen ko yàgg wax du dëgg mais pourquoi ñuy xool ba li ram dugg ci ñag bi ak way wi kep gal kenn du ko jàng ci tefes chaque jour ngeen way way wi nit de ngeen continuer di way rek est-ce que dara su fekkante ne dafa ray eh, ki pot ñu waxtaan si tay bo bu bu ñu yëngaloon dara ay nit de ci est-ce que pot normalement duñu xool li ñuy yëngal bala ñu ko yëngalaat parce que parce que eh, eh, nga wax yoon mais ngooxi ngoox yaa ka tey mm-hmm. nit ñiy dem nii di dee tey ma wax la benn affaire ñii di politique yëpp seen doom deewul mm-hmm. ñun suñuy doom ñooy dee keroog dañ